weeru décembre bi nga xamante ne moom la ñu nekk xibaar yi ñu gën a ràññee ci réew mi ak bitim réew tey nag ci suba la ñu daal di si jël li nga xamante ni moo di fukkal ak ñeent édition foire internationale ci Dakaaru kii di première ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne moo jiitale boobule xew-xew tey ñaax nag dëkk africain yi ngir rek ñu ra rataxal seen diggante jënd ak jaay laneen ni tamit lu gën a fës ci xibaar yi bokk na ca Kolda lu tolloo fukk ak ñeent doomu aadama yi nga xamante ne ñàkk nañu seen bakkan ginnaaw ba ñu amee jàngoro yi sida lu tolloo fanweer ak juróom-ñett nag gisatuñ leen ba tax na ñu fay liggéeyee ci district sanitaire yi di ñaax askan bi waaye itamit di ñaax autorité yi ci leen ci lum leen ñàkk gis fële ca Sédhiou nag li fa xew mooy lu tollox ay ndongo ñi nga xamante ne ñoo nekk ca commune Palmarin ñoom nag dinañu jóge seen i kër di dem jàngi dinañ ci am ñaari waxtu laa tax ñuy jox seen école ba tax na maire ba daal di jël nag lu tollox juróom benn fukk ak juróomi vélo ngir rek jàppale leen salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi dal leen ak jàmm seen xibaaru juróom ñaari waxtu fii ci 2STV naam ni ñu ko waxee ci bopp xibaar rek ndiki tey ci suba la ñu daal di tijji lii di foire internationale mu nekk ñaar fukk ak ñeent édition boobu nag Mahammed Boun Abdallah jon di premier ministre bu Sénégal mi ngi ñaax li nga xamante ne moo di diggante jënd beex jaay yi ci pays africain yi Badara Diop Mohamed Ba. Au nom du président de la République son excellence monsieur Macky Sall je déclare ouverte. la 24e édition de la FIDAK. yilimaani jëwriñ yi Mouhamed Boun Abdallah Dionne daal di jaaree noonu ubbi ndorteelu ñaar fukk ak ñeenteelu édition bu foire internationale bu Dakar ndajeem ndakaaru bi nekk nag ngëneel bu mag a mag ci opérateur économique yi nga xamante ni bëgg nañu fësal seeni njënd ak njaay mu di nag ab plateforme bi nga xamante ni FIDAK dina leen ko may. cette année l'édition de la FIDAK. ren ji FIDAK bi dañ ko daal di jox tomb bi nga xamante ni moom moo di yombal lépp loo xamante ni dafa nekk ci wàllu jëflante rawatina mu dugg ci développement ci sunu diwaanu région yi ak li nga xamante ni mu ñuy xar ci continent bi. à l'intégration africaine et au développement régional. édition ren bii nii nag kilifa yi sénégalais yi réew mi ñu tànn ngir mu doon seeni gan moo di Cameroun. buñ koy xool sax ci taarix Sénégal ak Cameroun bokk nañu li ñu bëgg moom moo di xar seen tànk tubéy ba gis continent africain mën a développé wu te du yaakaar ci keneen. Les deux pays. ñaari réew yi ci seen bëgg-bëgg ngir daal di gën a jegante moo taxoon euh, ñu daal di gën a rataxal nag seen euh, wàllu relation diplomatique jaare ko ci xaatim bi ñu defoon ci fukki fan ak juróom-benn ci weeru juin ci atum 1972. accrédité de part et d'autre. les deux pays entretiennent. ñaari réew yi ñu ngi jëflante tamit euh, jëm ci wàll euh, njënd ak njaay ci fànn bi beneen fànn nag jëm ci lépp loo xamante ni rek dafa ñel wàllum produit yi ñuy faral di jëfandikoo lu ci mel ni bant beeg lépp lu ci soqe ko. les produits halieutiques poissons et crustacés. gannaaw ndajem cérémonie officielle duverture bi nga xamante ni chef bu gouvernement bu Sénégal ak naataangoom bi nekk Cameroun jiite nañu ko ci noonu lañ daal di àndee ngir amal tukki nemmeeku ci yenn ci ay stand ñu daal di koy dooree ci pavion bi nga xamante ni exposant camerounais yi rek ñoom ñoo fi ne centre international bu commerce extérieur bu Sénégal di CICES e moom moo nekk nag célébé yoon daanaka ci samedi ji ñëpp ñi nga xamante ni dañuy dem di jënd ak jaay rawatina ñu fay dem ngir dañ kumpa mu fas yéene jeex ñaar fukki fan ci weer bi ñu nekk. ba tey dañuy des sax yéen ci tijjite foire bi ndax ki nga xamante ne moo di représentant Cameroun moom nag euh, mi ngi ñaax état africain yëpp ñu daal di booloo rek jàppale leen ci li nga xamante ne moo di acte terroriste yi tax na nag ñuy woo rek ni bokkoo aram sonal na leen loolu nañ leen jàppale ci lu ni mel dañ koy déglu ci micro suñu ay nattaango. Au ci wàllu kaaraange euh, Cameroun euh, daal dinay euh, nekk réew moo xam ne réewum jàmm la am kaaraange bu baax a baax wante tamit am stabilité moo ne nag mën nañoo jàpp ne ni ki réew yi nekk ci àdduna bi yëpp rawatina Afrique Cameroun tamit mu ci buntu ñi nga xamante ni ñoom ñoo di defkat yu bon yooyu nga xamante ni ñu ngi ci réew mu nekk ñun nag jafe-jafe bi nga xam ne gën nañu koo am ñenn yóbbewuñu ko lu dul ñi nga xamante ni kenn ràññewu leen Euh, mu di ñi nga xam ne ñoom la ñuy wooyee Boko Haram moo tax ñu xalaat ne jot na tey jii nii ñu mën a tëral ay pexe yi nga xamante ni ci la ñuy waajale sunu bopp bu baax a baax moo tax sax tey jii nii ñuy euh, feddali sunu kóllëre ak sunu jàppale réew yi nga xamante ni tey jii nii ñooñu dañ leen euh, fitnaal daal di leen métital lu ci mel ni réew bu Mali Tchad réewum France tamit ci la bokk réew mi ci mel ni Kenya tamit euh, am na ci wàll bu am solo. parmi nos populations et sape nos efforts. yan yoon la ñu war a jël ngir rek daal di dugal li nga xamante ni moo di numérique bi ba mu jàppale leen ci wàllum koom-koomu réew mi loolu nag moo dajale woon ndikk ci suba amicalu cadre ARTP ngir ñu xool nag nu ñuy daal di dugalee lépp luy règle stratégique ci biir numérique dañuy déglu ki nga xamante ne moo di Alpha Abdoulaye Thiam ci micro Elage Malick Cissé Libas Ndiaye. suñu ndaje bi li ko waral mooy dañuy xalaat tey euh, lépp lu ñuy wooyee numérique nan la mën jëriñ askan wi yëpp. ba nga xam ne ñun ñëpp dinañ ci am loo xam ne dinañu dinañu jàppale ñu mën a jëm kanam ñun ci suñuy wàllu bopp wante ñun tamit suñu wàllu euh, suñu wàllu mbooloo ñun ñëpp loolu daal mooy suñu taxawaay ñu wax ay ñu woo euh, ñoo xam ne xam nañ leen xarañ nañu def nañ fii ay jéego yoo xam ne ñëpp gis nañ ko muy ci àdduna bi yëpp ñu woo leen ndax ñu may ñu xel ñu mën a xam fan la ñuy teg suñuy tànk ndax ñu mën a jëmee dëkk bi kanam. suñu amicale bi ay ndaw ARTP la yoo xam ne dañoo toog daal ne dañuy xalaat seet daal ñoom lu ñuy xalaat nan la mën a jëriñ ñi nga xam ne tey ñoo yore dëkk bi. ñoo yore dëkk bi ñoom ñooy ñoom ñooy jëmale dëkk bi kanam ñu mën leen may tuuti si lu ñuy xalaat yokk ko si ñoom lu ñu am ndax euh, lépp mën a jëriñ askan wi yëpp. ñu dem ba Kolda lu tolloog fukk ak ñeenti doomu aadama ñàkk nañ seen ba kenn ginnaaw ba ñu amee li nga xamante ne moo di jàngoroy Sida fanweer ak juróom-ñett nag réer nañ leen ba tax na ñi nga xamante ne ñoo nekk ci district sanitaire yi di ñaax gouvernement bi ngir rek ñu jàppale leen ci li ni mel dañ ciy ànd ak Bokar Kande ci woy bi ñuy woy jigéen yi di ñaaxaale askan wi ci lépp lu jëm ci loraange yu sida mën a indi fii nii nag ñu ngi ca Médina Chérif maire commune bi xalaat dajale góor ak jigéen mag ndaw ngir ñu wax ci sida. ñun dañu nekk ci côté Diaobé te ñëpp xam nañu Diaobé am na ñoo xamante ne dañ dañuy jóge ci dëkk yeneen dëkk yi. di ñëw di ànd ak ñun di booloo ci ñun mais di ñu raw ay maladie yu mel ni ay sida. ñu jëlee ay xale yu ndaw di leen jongal dañuy woo benn kooku jël benn paaka jongal ay fukki doom. ñun suñu aadama yi soo jabar su nekkee ci kër euh, yàlla nangu boromam genn àdduna dañuy faral di donnu mais balaa ngay donnu kenn war nga dem ci hôpital nga ne ah nañ dem ci hôpital ñu seet est-ce que amoo jàngoro bi walla am nga jàngoro bi. dépistage sensibilisation consultation prénatale activité yu bëri yuy tax rek ba askan bi mucc ci feebar bi lañ fi amal xeexum sida war a soxal ñëpp. ñu gis ne nag sas lay doon ci njiitu collectivité locale yi ndaxte partenaire yu bëri ñu ngi génne seeni loxo ci mbir mi. perte yi bari nañ bari nañ parce que tout simplement amuñu moyen en tout cas aller à la recherche de ces perdus de ces perdus de vue là boo xoolee ren en trimestre 1 ak 2 ak trois boo xoolee ñaata perte de vue 38 per de vue on a 14 décès. soo xoolee bu baax am na ñoo xamante ni dañuy am sida ñu dem def dépistage ñu xam ne ah ñii moom am nañu jàngoro bi du ñu am xaalis pour dem à plus de quatre-vingts kilomètres euh, chaque fois di day jël ay garab wala def ay consultation loolu nag day tax ñoom ñuy walla ñenn loolu moo tax ñu ne il faut ñu def sensibilisation mais ñun ci commune Médina Chérif dañ jël nañu engagement bu mat sëkk ñu ne il faut ñu jàppale état bi ñu jël ci suñu budget maanaam année prochaine 2016 ñu génn foofu ay xaalis boo xamante ni pour jàppale ñoo xamante ni am nañu sida pour ñu mën a faju ñu fàttali na rek Kolda bokk na ci diwaanu Sénégal yu gën a bëri la nag sida fii téeméer boo jël ci askan bi fii yeewu ñaari ñi jàpp nañ ne nag mun nañu am doomu jàngoro bi jigéen ñi gën cee sonn feebar bi di ci ndaw ñi mission internationale programme éducation bu Amnesty Sénégal moom nag moo demoon ca Sédhiou ngir rek xool taxawaayu projet école ami waaye itamit ak ak yelleef doomu aadama lu ñu gis nag mooy ñàq transparence ci yooyu les établissements nee nañu ni koy doxalee daal dafa mel ni dafa am ay njuuj njaaj dañ ciy ànd Robert Diandi xaali jéeme ci ab tournée bi ñuy amal ci àdduna wërngal këpp ab délégation Amnesty International ñëwoon na Sédhiou ngir xayma li ñu jot a liggéey ci projet école ami des droits humains ci ay daara yu mel ni lycée Ibou Diallo ak CEM bu Karumbu moo ñu respecté ak ak yelleefu doomu aadama mooy yeme yema yem yemale nit ñi mooy ki équité mooy aussi ñëpp bokk que ñu bañ boddeeku ñu bañ boddi kenn ci ci biir école bi donc ce qui signifie que ñun appel la ñuy def pour que vraiment ñu bañ a gis scandale wala yéemu na yéeme na ngay di say ji ay abri provisoire ci ci même ci biir ville bi ngay dis na ngay dem ci yenn école yoo xam ne nekkuñ sax ci àll bi àll beeg yëpp ci yem ñëpp a ci yem sa fay mel ni dañoo bodd ñi ñi euh, on parle pas d'inclusion waxuñu inclusion mooy boole ñëpp ñëpp yem. donte sax am nañu mbégte ci ñu nuy doxalee programme bi ci biir Sédhiou waaye nemmeeku nañ itam ñàkkum formation rawatina ci booru professeurs yi. il faut un budget participatif. il faut que loolu mooy obligation de rendre compte mooy am transparence mooy tax mu leer ñu xam xaalis bi fan lay jëm ndax 40 pour cent yoo xam dañ ne école lañ ko jëmale ba pare ngay ñëw di euh, euh, euh, koy waxee ci xaw ma sax nu ma ko mënatu crintin crintin ba sax tane na am nañu amul crintin dañuy dem rek ci àll ba daal di jël seen ay feuille d'arbre mel ni on est au dix-huitième siècle au dix-sept au dix-septième siècle daal di ñëw nit ñi di jàng ban condition la ñuy jàng naaj bi day tàng jër duñ fa mën jàng am na sax ñu ma wax ne ma keroog dañoo daw ndax benn jaan moo ñëw tudd foofu moom itam di féexlu seem bu karumbu nga xam ne day dalal ay daw làqu ak itam ay ndongo yu jógee Guinée Bissau nga xam ne sorewu fa dara ñu ngi rafetlu jàmm ji ñu nemmeeku ci seen daara jooju bi ñu tàmbalee amal programme bi ba léegi. lépp lu nga xam ne dafay dem ci bon fonctionnement dañ koy waxtaan ak groupe de travail ak comité de gestion bi dañ koy waxtaanee balaa ñu koy mu ciy dugg depuis bu ñuy defee activité yooyu damaa gis ne ni. Euh, daf ma yombal ci liggéey école bi ci euh, management comme ni ñu koy waxee pour euh, dem ci kanam ci jàng bi ci jàngale bi. jamono yi toll nag toll nañ ci ñaari téeméeru école ak juróom fukk ci ñaar fukki réew ak ñett ñi nga xam ne ñu ngi amal programme école amie des droits humains boobu ngi rek njàngu muutum jàmm mën a tàmbali ci biir daara yi. ndongo yi dañu daan dox ñaari waxtu bu ñu génnee seen kër ngir rek daal di uti école yi lu ni mel nag mu mel ni jeex na ndax ki nga xamante ni moo di maire commune Palmarin moom ci boppam ak ay partenaire am joxe nañu lu tollox juróom-benn fukk ak juróomi velo ngir jàppale xale yi ci kilomètres yi nga xamante ne ñu ngi koy dox Aliou Badara Sonko Cheikh Ba. élèves yu daan dox ay kilomètres kilomètres ngir ñëw jàngee ci lycée bu Palmarin jamono ji seen coono wàññeeku na ndax meeru commune bi lëkkaloo ci ak ay partenaires espagnol bi nekk ci fondation vélo sans frontières ñoo amal ab cérémonie jébbal élèves yi lu toll ci 65 vélo ngir yombalal leen dem beeg dikk bi. commune de Palmarin am na lycée depuis quelques années mais soo gisee lycée bi fu mu nekk par rapport village yi dafa am distance. de telle sorte que élèves yi chaque jour dañuy do ay kilomètres ay kilomètres pour ñëw école bi suñu wàccee ngoon do ay kilomètres quatre cinq même voire plus bon des fois suñu amee occasion am tuuti xaalis jël oto yi mais loolu dafa cher ci parents yi après ñun ci mairie bi ñu gis benn partenaire signé ak moom benn convention pour daal. mu essayer ñu seet naka la ñu mun a dimbalee pour ñu am ay bicyclette ay vélo pour ko xale yi comme ça suñu ñëw école dootuñu dox dañu jël bicyclette yi. proviseur lycée bi jàpp ni gest bi dana gën a contribuer ci ful résultat yi nga xamante ne établissement scolaire bi moo ngi koy amal. nekk na loo xamee ni lu am solo la ndax tey jii. Euh, joxe ay euh, vélo ay élèves yoo xamee ni danañu def juróom-benn ba juróom-ñaari kilomètres ñu dëkkee jaxanoor wala juróom-ñeenti kilomètres pour ñëw ci lycée bi defe naa ne bu ñu amee vélo yi lañ daan def ñaari waxtu di ko dox bu ñu ko defee ci fanweer fanweeri simili damay yaakaar ni loolu nekk na loo xamee ni lu am solo la te dana leen gën a dëgëral ci wàllu njàng mi ndax day andi yokkute maanaam day yokk performance su xale bi ci wàllu njàng mi. élèves yi ci seen wàllu bopp rafetlu bii les gestes. kontaan naa parce que bi may jàng fii ba tey mosuñoo am lii lu dul tey ñu ay tubaab ñëw fi may suñu ay vélo yu toll nii mosuñu kaa am nag ñu ngi leen di remercier bu baax. waaye am naa mbégte bu mag bi ma jotee vélo bi maa ngi remercier mairie bi ak ñëpp. naam vélo yi danañ yombal élèves yi dem dikk bi teggi leen tamit coono waaye tamit vélo yi danañ gën a contribuer ci gën a ñoŋal njàng meeg njàngale mi ci gox bi. ab délégation responsable nag bu grand parti ñoom ñoo demoon ca Ross Béthio ginnaaw ab visite ci boobu la visite nag jot nañu waxtaan ak askan wi nee nañu li nga xamante ne moo di politique agricole bu gouvernement Macky Sall des na des na tuuti ki nga xamante ne moo di Dame moom ci jëm boppam nee na dañu war a gën a saytuwaat li nga xamante ne moo di recherche scientifique yi ñuy jël rek daal di ko jëgmeel vallée delta vallée fleuve Sénégal dañ ciy ànd ak ki nga xamante ne moo di Dame Seck di njiitu grand parti ci micro suñu ay ci affaire mbay bi du ni président Macky Sall defu fi dara de déedéet loolu wax ko sax du lu loon teggin euh, wax dëgg-dëgg mi ngi def nag kéemtalaayu kàttanam am na lum fi def lu baax waaye ñun dañu yaakaar ni grand parti euh, Macky Sall ci mbirum mbay mi war na def lu gën ñun mën nañu def lu gën li Macky di def mën nañu def plus que li maki di def ndax boo xoolee Euh, ingénieur yi nga xamante ni ñoo nekk istra ak feneen ak feneen mais recherche bi li ñu wane indi si ay conclusion bëri na trop mais dañ ko jël dugal ko ci biir tiroir yi kenn appliqué wu leen donc war na ñëw toog ñu génne conclusion résultat yi nga xamante ni recherche bi jox na ko ñu dugalaat ko jox ko baykat yi ñu appliqué ko ñaareel bi tamit euh, war nañu fexe ba waalo waalo bi amaat yaakaar delluwaat ci suuf parce que tant que waalo waalo bi gisul nii Euh, bu delloo ci suuf bi du si gis boppam bu delloowul ci suuf si du mën a régler ay problème am mais waalo waalo du fa dellu donc loolu politique la boo xamante ni mais gouvernement bi daf ci war a tënku nekk ci dox ci def ci fulla ak fayda jël li nga xamante ni moom la suuf si laaj jox ko jox ko ko moyen yi mu laaj ñu jox ko ko gën a dolliwaat alal gu bari ci affaire recherche ndax recherche mooy base bi nga xamante ni moom la ñu war a mën a tëral mbay mi pour que mbay mi mën euh, dem euh, fi nga xamante ni bëgg nañ ko fa pour mu toll fa fii ci Sénégal euh, dégg naa président Macky Sall di wax autosuffisance en riz loolu lu baax la waaye am na lu ko gën li ko gën mooy autosuffisance alimentaire ñun am nañu yàqin ni ci suufu waalo bii rek bu ñu fexee ba waalo waalo yi delluwaat ci suuf si la war ci ñoom ñu def ko ci dund gi Sénégal di dund yëpp war nañ ko mën a am fii ci waalo juróomi fan ci weeru décembre 2013 juróomi fan ci weeru décembre 2015 ñaari atax léegi ki nga xamante ni moo di Nelson Rolihlahla Dalibunga Madiba Mandela daal di génnee àdduna niki boobu mu nekkoon koo xamante ne nag moom la ñu tabboon ni héros ngir xeex lii di apartheid moom nag amoon def na 67 ans daal di ko xeex lépp luy jëm ci lutte politique waaye itamit militantisme kii di Nelson Mandela nag mi ngi ña mi ngi génnee àdduna ci juróom juróom-ñeenti fukki at ak juróom. ginnaaw nag euh, bañ koo dencee fële ca Kunung nekk dëkk bi nga xamante ne foofu la màggee foofu la yaru bu ñu jógee ci loolu dañuy dem rek ci wàllu tàggat yaram ndiki Sénégal nag démb la am ñetteelu victoire am ci match de poule mu nekk nag li nga xamante ne ñu ngi ko doon rafetlu bu baax ba tax na nag daal na dóor rek Zambie ci benn bal ci zara dañ ci ànd ak Babou Ndour Pape gannaaw bi mu marqué bi Sénégal doon jan ak Tunisie. mu Mouhamadou Abibou Diallo defaat na ko ndax bi ñu footballee 4 minutes si la ñu am benn corner mu tëb ba si kaw marqué bal bi. bii bu teel boobu taxoon Gambie yi bëggoon a égaliser waaye taxul ndax défense senegal bi dañoo taxaw temm di leen xaar ba si mi bi. bi ñu dellusee si deuxième mi-temps bi Zambien def nañ seen kéemtalaay kattan waaye xale Serigne Saliou Dia yi bugg ñoon encaissé beneen bit. match bi mujj jeexee ci 1-0 ndam li doon ñetteelu ndamu Sénégal si ñetti sorties. dixième édition festival Blue Fleuve moom la ñu tijji ndiki démb fële ca Podor mu gis ci nag ay prestation yu mucc ayib ci ñi nga xamante ne ñooy artistes ya fa yeewu ki di Mamadou Racine Sy di DG Sénégal Tour moom nag mi ngi rafetlu li nga xamante ne am na fa waaye rawatina tem bi nga xamante ne moom la ñu tabb ci at bi muy place culture ci plan Sénégal émergent dañ ciy àndax rek ki nga xamante ne moo di Racine si ci micro suñu ay nattango eh, Euh, def na ko maa ngi ko ci gërëm di ko ci sant parce que itam bu ma ràññee am Pastef ci man am cofeel ci man ba euh, bàyyi li mu lii loolu tuutiwul ci man maa ko ci remercier waaye dama dama xam ne itam bés bi ku jaram màggal mooy Baaba Maal ci boppam parce que Baaba Maal dafa doon ki nga xam ni ci doomu Podor yi euh, def na fi li nga xam ni wax dëgg yàlla lu rëy la li nga xam ne ñu ñëpp ñu ngi koy rafet nit noo dëkk Podor te xamuloo El Hadj Mal parce moo tax loolu mooy wane ni El Hadj Baba Mal ambassadeur la Baba Mal dafa bokk ci li nga xam ni moo yokk koom-koomu Podor mooy bokk ci li nga xam ne moo yokk koom-koomu Sénégal mooy bokk fi nga xam ne fépp fu mu dem dina dina contribuer ci li ñuy woowee promotion wu Sénégal promotion wu euh, Podor promotion wu culture alpulaar ndax moom ku dëggu la ci loolu loolu terewu ko itam mu am ouverture maanaam mu ubbeeku ci yeneen culture yi waaye la nga xam ni fa la sëkkandiku d'abord mooy culture boppam mooy mooy couleur euh, donc donc nga xam ni euh, itam ñu ngi koy rafetlu parce que ba ma lu mu am itam ci Podor rek euh, lay mujje fii lay ñëw bokk ko mbokkam yi bokk kër yëpp moo tax mu jagleel festival bi nga xam ne ñaari at yu nekk moom la ko jagleel waa Podor ma ñu nag loolu ñu ngi ko nar rafetlu te jàppale itam Baaba Maal ci loolu parce que bi muy xeex loolu yàgg na ñun dañu ñëw rek fekk ko ci ñun lépp lu ñuy def defuñu ko pour suñu bopp wutuñu amul dara li nga xam ne dañ koy wut lu dul la nga xam ne mooy fab doomaanu Podor yi yëkkati ko nar nga fàttaliku fa nga jóge nar nga fàttaliku fa sa ay maam nekkoon euh, moo tax ba ma nekk xale ba tey ma ñëw di ziare si fii ci armeel yi suy ma ak coofi seet sama ay maam yi fi nekkoon di seet sama ay mbokk yi fi nekkoon pour euh, nemmeeku leen waxtaan ak ñoom xam ni fi laa bokk fekk nit ku nekk fa nga bokk rek nar nga ci euh, bul xeeb bu nga bokk parce que nit ki Euh, fa nga jógee rek dégg ma nan nga ko nemmeeku xam fan nga leen mën a féete xam noo leen mën a dimbalee ak yow bu ma yàlla mayee nag dégg ma ma jëm ba mag n'est-ce pas gis itam fii itam nit ñi euh, jar nañoo dimbale parce que nit ñi déggu lañu nit ñi am fulla lañu nit ñi am fayda lañu ma ni as tuut li nga xam ne yàlla dénk nañu ko ñu bokk kook ñoom fexe ba nga xam euh, daa ñu wàññi ndóol mi fii fexe ba nga xam ni ci lu ñu yàlla kàttanal daañu ci mën a wutal liggéey nit ñi am dimbale nit ñi ci ay projet dimbali leen ci li nga xam ni ñun wutuñ ci dara amul amul post bu ñu wut wutuñ ñu nekk député wutuñ ñu nekk sénateur wutuñ ñu nekk ministre wutuñ ñu nekk lenn lu dul dem euh, lu ñu soxla rek mooy foog suñu euh, lu tuuti li nga xam ni ci doole bi ñu am dégg nga bi ñu yàlla dénk boole ko ci ak doole ñëpp ñu dégg dëkk Podor maa bëgg Podor pour fexe ba Podor jëm kanam beneen festival international bi yoon nag ci wàllum poésie la mi ngi amee fële ca Saint-Louis ñu jàpp ni bii mooy juróom-ñaareelu édition bi ba tax na nag ci girum ñetti fan képp kuy professeur lettre waaye itamit écrivain dinañu jongante ci wàllum mbind dañ ciy àndax rek kii di Alioune Badara Coulibaly ci micro suñu ay natango waaw poésie ba bayit la moo di kàddu yoo xam ne boo koy wax day neex a dégg neex ci xol euh, neex neex tam ci làmmiñ moom nag mooy moom la wax li nit di wax bayit bayit moom mooy poésie ah moom nag moo tax ñu bëgg na gaa gaañu comme dañu ko xaw a soofantel ñu def ko ndaxte bu dee bayit ñu ci bare ba ci sunu sunu sëriñ yu mag itam ay bayit lañ ñoo def tey nag bu ñu koy def tam ci beneen ah, làkk tam ñëpp mun ko bëgg ndaxte bayit yemu rek ci ñu làkk ko ci tubaab mais bayit tam daañu ko def ci pulaar daañu ko def ci xeet bu nekk daa daa bind sa bayit waa bii mooy septième édition bi ñuy def alors tàmbali woon ko bu njëkk fii ci centre culturel bi lañ ko tàmbali woon tam ñu toll fi di gërëm aussi de Desolas ba nga xam ne moom moom mooy directeur wu centre bi te te taxuñu euh, ñuy gërëm tam ministre la culture ak képp ak képp koo xam ne dimbali nga ñu suñu ganu écrivain yi nga xam ne ñëw nañ fi. Ah, waa activités yi moo di euh, poètes yi kii suba ba léegi ki ñetti fan yëpp ñu ngi ci école yi ñu ngi di lycée yi école ak collège yi di jàngal xale yi. nan la ñuy bindee poème ndaxte lu jëm ci école primaire récitation am na mais xale yu bëri duñ leen jàng récitation léegi nag ñu leen di jàngal ñoom seen bopp xale yi mun a bindal seen bopp récitation. parce que lii mosu fi am te tey itam dama fàtte am lu ma wax ci tubaab lu fi amee tam grâce au président El Hadji Coulibaly du tey noonu moo sasante ci yu mel nii am na yu bëri mais moom dafa insister pour que tey Charles Carrère nekk le parrain du festival pour que Charles Carré soit le parrain de ce festival euh, mu def ci doole kàttanam ba tey yëf yi ah sunu borom bi eggale na ko. fii la ñuy yem ak ci xibaaru juróom-ñaari waxtu di leen dig daje suba ci euh, benn waxtu fii ci 2 laa tax boobu dañ leen di ñaanal jàmm biir ak jàmm bi ci